mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi fii ci Touba Touba la Sainte ci barab bi ñuy duppee gaar bu mag mbokk yi ñu ngi jéggalooti bu baax ci image yi ngeen di a gis di ay image yoo xam ne ni yu xaw a métti la caw gisin ndax ay gone tout tànk ak sëriñ Touba ni mu fonke woon ndaw ak li sëriñ Touba wax ci ndaw ak li sëriñ tubaa def ci ndaw ci dëkkam boobu lañu fi abandonné benn barab boo xam ne ni njabootu sëriñ tubaa gi ñoo gisoon yërmande gi jëm ci taalibe yi gis marché bi ni mu xatee Serigne Saliou yàlla nañu ko yàlla fayal mu décentraliser marché yi jannatul maxwa ngiraneen kër ñang quartier bu nekk mu sampal leen ab ak seen pénc fii ci gaar bi mbokk yi marché gaar bi ñëpp di ko dégg nii lañ ko def abandonné ko ay ndaw ay tout tànk yoo xam ne kenn taxawul leen ay tout tànk yoo xam ne nii dañu leen seetaan ay tout tànk yoo xam ne ñoom fii mooy seen empire fii mooy seen Touba mbokk yi di tox di gaz di agressé faq seeni kër yi koo ci laaj mu ne la jàng naa alxuraan ba pare koo ci laaj mu ne la wàcc naa koo ci laaj bu la waxee ab turam da tiit mbokk yi nan lañ mën a seetaane lu mel nii ci dëkk bu sell bi di Tuubaa mbokk yi xool leen les images c'est cent commentaire Cheikhouna Gaye Touba. fan ci Touba Tëlu Bees. Tëlu Bees. waaw fii ñu la fekk nii fan la. mooy gaaru mag. fii mooy gaaru mag. waaw lii nii ay cantine la. ay bâtiment waaw. kañ lañ ko fi xaw ma nag fii laa ko fekk wax dëgg yàlla ndax man njëriñ laa jàng alxuraan. waaw waaw jàng alxuraan ba ñibbi si dëgg bi. jàng naa ba ñibbi si waaw tër mooy kii ma la wan nii Serigne Fallou Serigne Bassirou. waaw léegi yow fii loo fi def ci dëgg tamit. fii toog. am na nag ay gone fi nekk di tux hmm. di gees fii nii ci barab bi waaw am na waaw ñu si ëpp. fii leen dëkk si dëkk bi. Ah. dañoo daw daara. gone yi ndaw fi ëpp. léegi am na nag ñu fi ñëw di tux si. Mhm. waaw am ñoo xamante ne ni ay liggéeykat lañ ñu fi ñëw di tux ah, dañuy ñëw buñ toxee dem. dem ñibbi seen waaye gone yi si ëpp. dañoo daw daara seen bàyyi dem seet. ñu nekk fi di gens am na fi tamit ñoo xamante ni amuñu liggéey te bëgg nañ liggéey te amuñu ko am na ñoo xamante ni buñ jaay man maçon laa woon waaye instant yii liggéeyatuma dara. man daa dëgg yàlla au-delà daan liggéey suñ place moom dama fa daan dem xaw ma nag lu ma fa jëlee damay jékki-jékki rek dem sama sama mbokk ngi fi sura sama maama ngi fi buñ ko seen laaj baar lay liggéeyee Omar Cissé Baye Omar Cissé sama yaay ñu ngi ndar Angaltal jaaminaar man da wax dëgg yàlla lan mooy sama problème dama seen problème daal mënu ma toog damay dem ak rek mooy lan sama xel nga fi yow xam naa fa waaw lu tax nekk ku nekk sa soxlaa fi indi moom ku nekk li ngay dox ñii dañuy toox ñii ku nekk daal li ngay dox. tax lu tax ngeen di lu tax xëyul man de wax dëgg place a ngi nii buntu ko laaj baara xaw ma lan moo ma fa teree dem liggéey uude laay def ak ma ko man trop du yomb de ay naqar naqaru àddina rek ak kër mooy loolu waaw sama ah, tante laa nekk ak sama maam sama ndey ak sama baay ñu ngi ndar angal taal jàmminaar fii laa nekk soro fi man fii lan ma joxe sama maam Baye Omar Cissé te lan ma jaaxee jàng naa alxuraan franco arabe laa doon jàng ah, école suñu Cheikh léegi nga bàyyi jàng jàng wu de waaw mën nga métier bi torop nu a def dama ma ci bëgg dama koy def waaye bu fekkee ne boo liggéeyee loo am ñëw fii kay sëñ bi bu ma amee place toog fixe am ko ma dimbali kay damay liggéey taalibe Serigne Saliou fii yow yaay chef bi fi non non man fii moom du ma chef dama fay jaar ni rek damay bay ñii bi lambay su ma bayee ba dëkk damay laawas su ma laawaasee après daal di nekk sama métier maa ngi raxasee hôpital 28. hôpital 28 heure bi nga ñëw fii nan waaw ah, damay entraîné waaw. lan entraînement ban ngay def. damay football damay damay appui avant damay def lépp. damay hmm? da ngay tox tuuti. non damay tox cigarette nag moom. da ngay moom du ma ko def waaye damay tox cigarette. man def naa koso at. loo defoon def naa koso at tuumaal lañ ma def. ma dem koso at dañ ma tuumaal na man damaa jël booy defal ni waay sa ma tuumaal na man damaa jënd téléphone jàmbur te jënd ma ko hmm. yaa ngi dégg ñu tuumaal ma si ma tëj ci at. Abdou Mbacke Bara Dolly ak suñ suñ Modou. ak suñ suñ seex. xam nga leen. ñoo ñëpp sama nijaay la suñ Bara Dolly mii nii. sama maam la. aji Mbacke mooy sama yaay. waaw yow Dame Fall. mooy sama papa. Baye man Fallou Fall. looy def fii man lu may def fii. ñaak ñaak xaalis rek moo moo moom moom jàmbaar la chaque jour ñibbi seen kër. bu ngoon jotee maanaam fi ngeen di yendu fu ngeen di aje. ah dañuy yàlla waay dañuy yàlla waay fu ngeen di maajaale ci wër rek yor pod yi dugg si dal yow yow bu baax nekk fii fi taxawal yooyu. ah député yi lijjanti ñun seen yaay lijjanti jàngul xanaa jàngul ah? jàngul jàng naa waaw. nga bàyyi jàng ah? am nga métier. man ah. man na am naa métier. métier mooy lan koro. corridor la. Ndidi an sa baay dafa gaañ. an sa ndey. dafa gaañ. léegi ku ngeen dëkkal. sama maam. Ah, sa maam bu góor bu jigéen. jigéen. jàngule na ko. man école laa daan jàng kay waaye. jàng daal. waaw. foyam. yaayal mu das yo. kii fu mu yow yow foyam. uluhiya. léegi lan moo tax ngeen bàyyi daal. lan. lu ngeen bàyyi. man damaa bàyyi daal di jàng école. léegi lu tax nga bàyyi lu tax mu bàyyi. damaa ay moyen. moo tax nga lu tax ngay jóge ndaamaata di ñëw ba fii yow it loo fi def. waaw dama fee ñëw pour si. football rek moo fi waaw yow doo 15. déedéet ko def da ngay jàng da yow bëri wax doon noppi ngay nekk. eh kay yow yow xam nga yow kay kay li nga jëloon reesagul kay. yow rek yaa ngi ah man damay gees waaw. mais boy man moom daara laa daan jàng dama daan tër biir. kon kii duggul woon. non non man tey daara yi suñ suñ xaadim naar doomu suñ bàkk son loon tayif. ku baax kooku lu tax nga jóge foo jàngee. man maa ngi jàngee daara Sëñ Bass Dieng Jurbel jaar naa fa université Sëñ Abdu Lahat nag fa laa mokkale Alxuraan fa laa bindee kaamil sama kaamil Sëñ bi moom Sëñ Fallu laa ko jébbal waaw moom Sëñ Fallu moom laa jébbal sama kaamil waaw moo def Touba ca kanam yow foo dëkk yow maa ngi dëkk Touba mbal gi kër Baye Fallu Fall damay faral di ñëw fii ci waaw faral di ñëw fii damay faral di ñëw ci barab bi waaye nag lépp nag natt suñu borom la eh, man dama daan marchand ambulant laa daan def waaye suñu borom moom ma natt ma amoon feebaru xel wéer di xel laa amoon li amoon ma jot koo fajoon nii ba suñu borom jeexal xaalis ba fi mu toll nii may ñëw fii bu mu rafet na li mbaaw fajoon naa fa docteur Boissy faj na ma waaye instant moom Fatick laay fajoo su ma amee ku ma jàppale nag dinaa jël léegi li taxoon nga feebar mbaa bàyyi nga ko waaw bàyyi naa ko waaw ah waa des fois rek ma. <laughs> waaw xam nga rek xam nga docteur ah, lu lu tubaab bi lu lu fajkat bi baax baax baax baax. waaw. yow mii xam nga ne yaa gën a mën a faj sa bopp. waaw loolu moom dëgg la xam naa dañu naan ñam naa ko neex na ba naa ko yomb. dëgg la dëgg ndax yaa ngi jéem. maa ngi maa ngi sabab lu daal. Hmm. yàlla nañu suñu borom boole dimbali. Hmm. waaye nag dimbali ba tàggali laag. li may jëfandikoo moom dinaa sant dina gërëm waaye suñu bi nag ñaanal la ma. ngir ba bàyyi ko waaw. Hmm. ñaanal la ma lu benn du ñaar. waaye nag suñu borom xam nga daa bëri doole te saytaane dëgg yàlla seytaan daa bëri doole. mais fii fan ngeen di jëlee bon bi ngeen di toog yooyu. ah yii déet bul ma dugal rek. Cheikh Issa Diagne borom lagan lan mu tuddee taali wépp sooy bu Diagne maa ngi taxaw. yàlla nag mooy bindub jaamam bur yàlla ak ndogalam jaam ak pexem. doomu aadama ku ne am na jaar-jaar ku ne. am nga jaar-jaar da nga koy dégg sax ni ñi wax famille boo am am na tur woo xam ne kii mooy lakkalu koñ bi waaye loolu dañuy ñaan suñu borom dindi ko si ñoon ñëpp. képp ku ci ne dañu ñaan yàlla suñu borom dindi ko. mbokk yi ñoo ko gisandoo xale yi de xam ngeen ne dañ leen a abandonné xale yi de xam ngeen ne dañ leen a sàggane mbokk yi moo ne ci ndawam ci la tàmbalee ràññeeku mbokk yi moo ne Serigne Touba de li mu njëkk a liggéey ci ndaw ñi la ko jëmale mbokk yi waaw ndaw ñi fan lañ leen di féetale mbokk yi te koo ci laajkat mun ne la man de mokkal naa alxuraan. koo ci laaj mun ne la wàcc naa koo ci laaj mun ne la sama sëriñ koo ci laaj mu ne la sëriñ fii nga xam ne yërmande taxoon sëriñ Saliou dagg ko marché ñi nga xam ne dañoo am doole ñëw jël ko aaki moo ko abandonné ko yenn yi kenn xamul lu muy nuróol ñi taxoon sëriñ bi natt ko mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci fi mu daan wax naan ab jaaruwaay du jaayikaay ñi daan lal ci mbedd yi ñi daan lal ci place su jàmbur yi mu gis na marché bi xat na mu faggu fii am ñu am doole ci dëkk bi ñëw jël ko abandonné ko xale yi def ko ni mbokk yi am na image yoo xam ne kenn mënu leen ko wan ci biir dëkk bu sell bi di tubaa ana responsable yi man jàpp naa ni image yi sax Serigne Mountakha yal na fi yàgg lool te ànd a wér li muy daj ci yoon wi li muy daj ci ndaw mi dañ ko ko war a wan sëriñ bi ay doom a ngi fii ay sët ngi fii ay jarbaat ngi fii te ay punkal ñoo leen fi encadré boo duggee ci biir da ngay yéemu ci yàlla ci cantine abandonné yi ci la ñuy nekk di tux ci li ñu nekk di 15 ci ay xale yu ndaw yoo xam ne nii ñooy ëllëgu réew mi mbokk yi ñu seetaan leen fii an nañu sëñ bi dénk dëkk bi mais kan mooy responsable ci lii suñ leen ne lii ci biir Touba la ci xolu Touba ak quelques encablures de la grande mosquée kenn dina ko gëm mbokk yi ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux ñii ñooy ëllëgu réew mi lu tax ñu abandonné leen bàyyi leen ak ay mag ñoo xam ne dañoo irresponsable mais même ñi nga xam ne dañoo seetaan marché bu mel nii c'est des irresponsables mbokk yi lii du dëgg du yoon te ku ko gis sa dina bétti ku ko gis sa dina bon xale yi ñu abandonné fii ñu nekk fi xol la nit ñi ci biir ak caméra bi nga xam ne bëgguñu sax heurter conscience yi ba yenn image sax dañ ko bëgg censurer mbokk yi luy jot jot na trop c'est trop lii ñuy entretenir fii danger la dañ ci jóg nañu raser complètement marché bi mais Touba soxla na fu mu def sapeur pompier Touba soxla na fu mu def service d'hygiène Touba soxla na ay barab yu yaatu yoo xam ne ni mën nañ fa defal xale yi formation professionnelle ñu jël lii abandonné ko ay nitu ko moom ñu bay xale yi fii ñuy sàcc di agressé nekk ak ay mag yu leen di sàccloo dégg naa ne dañuy nelaw ba ngoon guddi la ñuy ñëw lu sàcc yi xale yi sàcc ñu jënd ko Touba ca kanam ñëw fi def ay làmp xale yi dégg ngeen li ñu wax ñoom ñëpp dégg ngeen situation bi nga xam mais lii ce n'est pas sérieux et dañu war a situer responsable yi lii dañ ko war a dakkal dañu war a yóbbul suñ muntaxa image yi mu gis ko lii warta nekk fii ci biir dëkk bi ñu di ko seetaan kër yaa ngi nii ay borom bi jaboot lañu kenn buggul sa doom heure bi mu nekk fii di gaz di tux ak ay punkal ce n'est pas sérieux dëkk bi nekkul ci ay loxo wala ñi mun ko teg ci seen loxo ils sont pas des responsables nañ ko wax mu leer parce que fii wóor na ma ne mosuñ fee teg seen tànk nañ fi ñëw bu fekkee ne am nañ conscience nañ ñëw xool fii di fi xale yi nekkee